calcul génnee fàttali ko ne inspecteur des impôts et domaines la woon mooy ba li exemple bu ñu joxe ci ay avis de décès bu ñu duggee avis de décès dix dix huit pour cent yokk ci xar bi karaw xam nga déjà yow euh, ci koo xam ne tu es le père de la nation hmm. yow nga xam ne da war a nekk da war a indi solution waroo féewale sa njaboot ndax def li ñuy xaar si njiit mooy nga boole mais pas nga tasaare waaye ñu rajaxe ñee dem gonfler à yow nga boole si nag recevoir euh, yow déglu nga benn version mais la moindre des choses kay patron yi nga xam ne nii ñoo tax ñii toog am am sañ-sañ nekk tey ay employé patron yi nga recevoir leen déglu leen seen seen version mais tu as refusé de les recevoir jaxase leen ak seen employé ba pare bàyyi la ñu ñoo ñu ñooñu jéebaane leen loolu xanaa du loolu mooy premier volet entreprise bi

Il ko réseaux sociaux pour mettre en mal les sénégalais hmm. les en mal avec la population. C'est un lanceur d'alerte Oui, c'est lanceur d'alerte hmm, en mal avec la euh, population. Hmm. jaxase leen euh, jéebaane deuxième euh, volet bi de commencé Ils aussi doyen mu a il faut qu'on évite de tomber dans le piège. Le gouvernement est en train de nous tendre. Moi, ñuy assister spectacle suñu ku ne bind la page Facebook ku ne di Je suis ci lo ñi loolu bëgg ñu ba sur ray nañ ba suul ñoo des ñen joxé na seen loss bi pour ñu suul leen ñuy denn li nga wax page Euh, Saliou tegal ma communiqué appel bi man appel defe naa mooy lu waajal sant fay yor. Hmm. mooy affaire presse en ligne bi. exactement. Euh, defe naa c'est la première fois sax man may may seen communiqué bay xam naa liñ leen laal a tax. Hmm. waaye euh, damaa jàpp ne tey ministre bi temps yee passé génnaloon na bu gudd. Hmm. tey jii mu mu mu mu mu dem langaamu ci Sénégal. te boobu euh, direction de la communication moo ko signé woon direction de la communication moo ko signé hmm. tey jii mu ñëw langaamu ci général daan nañu à partir de lundi bi bi démb on a 30 jours képp ku nekk ci senegaal nekk ci audiovisuel presse rajo doon moo xam nga nekk fi cent ans. Hmm. moo xam nga nekk tey moo xam nga nekk fi. Euh, ngay waaj a ñëw ngay ñëw le parcours du combattant bi nga defone ba am say yeuf ba ak li nga investir yëpp nga dem outil ji autorisation mm-hmm. ci ministère de la communication mm-hmm. xanaa lool nak moy mm-hmm. parachever cette œuvre de destruction massive euh, cibler parce que loolu ñuy def ciblage cot cot la amna ay télé yo xamante amna ñu envie tëj ko

ñun ñëpp jarul sax ñu dem taxaw na dañuy dem euh, di di précipité wu di déposer ñun ñëpp nañu nañu dee yoon. parce que hmm. on va se rendre complice euh, de la tuerie de masse. Hmm. qui est en cours contre des gens comme moi qui sont les cibles xam nga kenn je parle pour moi Tay jii ben Aïssatou Diop Fall nga xamné bala maa ubbi sama lii lii 2007 laa ko préparé di dajale dajale dajale ba ma demee ba ma xam ne am naa tout li ma manqué ma dem uti ji prêt bancaire dugal samay garantie ñu lebal ma ma commencé di remboursé. Hmm. nga investir sa lépp jël ay gor jël ay doomu jàmbur di fay ay salaire di fay ay euh, impôt di fay lépp nekk en règle am l'administration ñun ba ñu ubbi kenn neewuñu da war a am lii ñun en tout cas li ñu war a am ci autorisation am nañ ko parce que nag kenn du jël sa alal ko dugal ci lu ñàkk fay la autorisation légale son entreprise dafa légale nous fay impôt légalement état la ñu yor état bi xam entreprise yu légal ak yu légalul xam na ko xam na on a un délit de faciès ils veulent nous couper le bec nous clouer le bec hmm. tey ñi man je demande aujourd'hui, le document yi là, je l'ai yor ko

waa ji nee na continuité amul dara amul xam nga lan la jaaraat leen fii même fréquence rajo yi ñu joxe woon jaar leen ay waay cest à ne ñoom foog nañu ne ñun la ñu rey mais état la ñu rey léegi yow tey jii duudu sama genre yi nga dem ne da nga leen ba pare lu gën a metti mooy tu vas t'humilier ils vont moom sant Sall xaw ma Mamadou Sall xaw ma dama doon nga xam ne. Hmm. nekk woon France lu jaay hamburger ak def plonge. ci tekkiwul dara ci réew mi bu ñu xeex. di nekk li ñuy nekk. dara ngay dem mu di la teg la si salle d'attente bi. la xaar loola def dem di toroxal ay góor ko nangu. un un petit type doo xam tekkiwul dara. ñëw fii nga xam ne normalement war woon sax nekk chef de quartier. ñu jël ko def ko ministre de la communication koo xam ne ñun li ñu yor yoru ko fee la nekkoon di xoslu France yoru fa dara mënu sax fay benn nit

nañu xool baadoolu lu ñu jël duggal seen gouvernement ak jox leen ay direction ba ñu dugg fi lu ñu yoro xol ak ji kanamu neew yi nga xam ku la xool xol ne ci kanamu hamburger la ak kanamu grec ak kebab loolu la doon dundee amul sax ñugo dugg ci restaurant yu bax ya ñun ñu ñaan dugg mom amu ñugo dugg fa fu fukkees mosu fa dugg mu xam naa la am mosu dugg George 5 tekk ñu wul dara ñu bëgg a toroxal ay gor yu mel man de Aïssatou Diop Fall demuma et je l'assume hmm ba muy ubbi sama sama sama lii lépp lu yoon wax am naa ko mhm. yor naa sama dina yor sama ISSN mhm. yor sama lépp mhm. di fay impôt ñu may imposer may fay je suis en règle avec les lois de ce pays mais quand il s'agit d'aller se, faire humilier de je n'irai pas dawuma patron hmm. de presse na bu len neexee ñu am sen ñak fayda ak sen tapet dem di rang ci kër ci waji ministère bi di xaar autorisation man dewuma hmm. ndax dem fa moy de façon suma fa demee du jox ndax ce qu'ils vont faire moy ciblage hmm. légaliser assassinat buñu bëgg def si ñu mel ne ñun xam nga ne Aïssatou Diop Fall lepp lu nguur gi lepp lu muy joxe duñ mako jox man mais pourquoi ma dem toroxal bop na naa damay dem ñu am plaisir photo ma Hmm. ñu am ma jox leen bànneex ñu photo ah. ma hmm. ma jox leen bànneex bind man bind benn feuille demande jox ko seen caga yooyu jox seen caga yooyu nekk ci kii photo bi ah! man ñu photo ma hmm. man dinaa dem toog man nee naa la tee jël acide naan ko moo ma gën a ma taxaw ci benn ministre gouvernement wu ma Ousmane Sonko mii taxaw ma fa tey taxaw ma fa ëllëg saali lu wax ni ngeen dagg ko dugal ko demuma tey demuma ëllëg

Je ne serai jamais de ma vie une victime consentante. Je ne serai pas complot, complice. Moi, Esther Diop Fall, je ne serai jamais la complice de mon propre assassinat. Man il faut que tu acceptes de te salir les mains. man damaa waajal sama bopp ba barkaat dém balaa tayee ñëw